Pape Makhtar Diallo Emilien en direct Bougane Gueye Dany fi nga xamante ni moo di ci seen TV jërë ngeen jëf internet yéen ñu topp saa seen seen bii di NGTV dal leen ak jàmm Pape Makhtar Diallo moom nag benn émission bi nga xam ne daan na am foofu si seen TV moo di Bougane Gueye Dany waaye suur boobu nag Bougane Gueye du fàtte ba mukk ndax Pape Makhtar Diallo damat yi nga xamante ni damat nag ki nga xamante moo di Bougane Gueye balaa ñëw séri ñu àndandoo dégloondoo li nga xamante ne xam nga Sénégal léegi daf ma commencé jaaxal parce que Sénégal léegi euh, ku jug rek ni da nga doon président de la République buggaan jàng mokkul entreprise la yor d' accord euh, créé na ay emploi mais fan la fi jëlee expérience ak expertise boo xamante ne war na mën a jiite réew et puis buggaan fan la jëlee mandat bay dem ci askan bi di naan dafay dem di déglu seen i seen jàmbat seen seen seen soxla di ko ñëw di ko yéegal ak kan la koy jox c'est-à-dire buggaan il n'est pas investi d'un mandat nekkul député nekkul ministre moom bu fi dàmboo toogoon ni muy lambar lambari dem ci marchand ambulant yi dem ci yeneen secteur d' activité yoo xam ne ay sénégalais ñoo fa nekk naam d' mais moom ban mandat ci am en fait ban mandat la Bougane am ba dem di toog di waxtaan ak sénégalais et puis bu waxtaanee ak ñoom fan la koy jëmee wala moom dafa nekk di liggéey président Macky Sall beneen question bi tey jii euh, Bougane est ce que da nga topp Macky lu mu def nga da koy def Macky def na fi investiture le 1 décembre 2019 mu def conseil tey nga wëlbatiku ni da def sa conseil national si jeunesse bugaan ñu la falee président tamit nga wax ñu ko man loolu yëgu ma de nee dañ ko fee président wala dafa nekk député du peuple. dina la tontu dina la tontu kon sa question yi en en quelque kon moo ngi noonu ñoo ko déggandoo ñu fàttali leen nag lii nag mën nañ mu ngi xewe woon avant Pape Matar moo di Sen TV nga xamante moo di Walfadjri ndax nag jamono ji Walfadjri la nekk nekkatul fi nga xamante moo di Sen TV jamono ji ne kon bëri nag di wax ne ki nga xamante moo di Pape Matar Diallo bii kanaan nag dafa bëggoon li nga xamante mooy démissionné foofu te xamul nu muy def moo taxoon mu doon yëkkati kàddu yu mel sax ñu tamit loolee tax ki nga xamante moo di Pape Matar Diallo jógee foofu noonu looloo tax looloo tax sax ki nga xamante moo di Bougane Gueye daal di koy tout cas lu ci mëntaam daal mooy kàddu yi nga xamante ni wax na ko mooy kàddu yu wér la kàddu yu dëggu la te loolu tamit mooy li nga xamante ni mooy réalité bi am mooy tamit li nga xamante ni moom la moo dal ki nga xamante ni moo di Bougane ngay Dany yéen nag mën ngeen ma wax li nga xamante ni moo di seen xalaat ci commentaire